Gaga Ndiaye ñu ngi rey ma ci séeréer man Gaga Ndiaye ak Gaga Ndiaye Gaga Ndiaye da nga ne Gaga Ndiaye ñu ngi romb man Gaga Ndiaye ñu ngi ñu romb ma ci sax ñu la Gaga Ndiaye. loolu la oui oui vraiment kontaan nañ ñëpp ñun daal liggéey bi rafet na ñun daal kontaan nañu ci parce que journaliste bu mag moo may interviewé tey jii. man Gaga Ndiaye ñu ngi romb ñu ngi romb Gaga Ndiaye ñu ngi ma ci sax ba ànd ndaw. mu ngi yóbbu ko rek